Mes internautes de votre site préféré www.diarédicule.net. Cette nouvelle émission consiste aujourd'hui à recevoir une artiste de renommée internationale, une artiste connue par sa voix siyaar comme on boo xamante qui qu'on a ramené qui voit le musique sénégalaise peut def ci ay a am voix qui se détermine par son caractère qui se détermine par sa pertinence qui se détermine par sa volonté de faire les choses elle est unique dans son style elle est unique dans sa voix dans sa façon de faire du kenn koo xamante ni moom la ñuy seeti tey ndaxte dafa génnee album bu bees tax mu doon album boo xamante ni tey soo doon nattante carrière yaakaar naa ni bokk na ci album yoo xamante ni ñoo gën a riche ci carrière am wala aussi nag man événement boo xamante ni le 17 août incha allah mu nga war a jëm ci Grand moo tax tey ñëw seet si ko dalal ko ci suñu biir émission 100 pour cent people musique ci biir VIP people point net Titi nuyu nañ la. waaw maa ngi leen di fay Tange kontaan naa trop invitation bi di leen nuyu ñëpp di nuyu internet yëpp nuyu naa ñëpp. kon ñoo ko déggandoo loolu mooy présentation lu Titi yi dañuy dugg dans le vif du sujet tey Titi est-ce que mën nañu xam depuis combien de temps nga commencé def musique. waaw xaw na yàgg yàggul nag parce que comme ni may wax rek euh, dama daan def danse laa daan def ensuite euh, bëggoon côtoyer artistes yu mag yi fi nekk pour defal leen ay kër wala bu fekkoon ne mënoon naa fecc ak ñoom waaye suñu borom def aussi ma liggéey ak euh, ku mel Salam Diallo Fallou Dieng Souleymane Faye Demba Dia donc loolu moma gëna permettre aussi ñu bari découvrir woon sama voix autant aussi ma liggéeyoon ak ku mel Fanta Mbacké nga xamné tamit euh, bima paré ak mom mu yobuma ma Guinée bi fa démé ah, j'ai fait cinq ans trois ans après Youssou nag bi ma fekk ma Guinée na vraiment liggéey bi may def intéressé n'ako ci la ñëw bima ñëw aussi mu mettre ma en rapport ak presse à rakkam yi ñoom Ibou Ngone ak ku mel ne Kabou Gueye moo sama premier contrat vers 80 94 et 95 yooyu donc mu nekk euh, album bi nga xam ne ko 2003 ba loolu moo waral tey sama liggéey ak Prince Art. tey fi nga dugg noonu maanaam sa diggante ak rencontré Fanta Mbacké kon yow Sénégal nga commencé musique donc Fanta Mbacké moo la jëlee fii yóbbu la Guinée parce que beaucoup de Sénégalais pensent dañu foog ñu ko Titi Guinée la jógee pour ñëw Sénégal. <laughs> Wa loolu dañ koy wax sax parce que même Guinéen yi tamit ñu ci bari ñu foogoon man Guinéen laa comme ñoom parce que tellement que def naa fa 5 ans dëkk fa vraiment mais loolu yëpp euh, fanta moo taxoon ma mënoon ko def parce que moom a njëkk a yóbbu foofu njëkk na ma fa yóbbu j'ai fait un an ma ñibbisiwaat mu yóbbuwaat ma ma def ay 3 ans 5 ans vraiment mais sénégalaise la fii la commencé musique kon ñoo ko déggandoo Titi sénégalaise la fii la tàmbalee musique Fanta Mbacké Kouyaté moo ko jëloon fii yóbbu ko Guinée en temps nag foofu la ko Youssou Ndour découvrir waate pour indi ko Titi tey mën nañu xam ban chanson ban woy nga gis ni que moo boosté sa carrière bi nga ko woyee gis nga ni que yow sentir nga actuellement que Sénégal yëpp aduna xam nañu ban chanson. waaw loolu la xam bu sama ko naree naree wax moom mun naa ne duma xam sax tellement que Titi dafa njëkk a génne ku ne ak la yëngal vraiment ñëpp accueillir loolu mais da ngay gis aussi musique musicale aussi dafa marqué Sénégal yi ba léegi dafa des ci xoli doomu aadama ak aw yi léegi loolu xam nga su ma koy xool toujours gën gi dëkk ñëw aussi gën a marqué Sénégalais yi donc kon mooy rek type bu ma génne ñoom dañ ci gis seen bopp ni bu yàggul rek def nañu nindi sëñ Abdou Karim vraiment nga gisaat tamit nit ñi jug gis ci seen bopp yàggul aussi nobal ku la nopp nga xam ne mi ngi ci albumu nindi bi tamit nit ñaa ngi ci gis seen bopp donc kon loolu man su ma ko namee décortiquer rek dama mun naa juum donc mun naa jàpp rek ne liggéey bi Titi di def daal neex na nit yi mais waroon na mën a jàppali que man mii kat bi ma génnee way bi sentir naa aduna découvrir nañ Tétis si nga commencé signé say contrat si nga commencé di dem ay à l'international di dem ay tournée. waaw boobu mooy ku ne ak li la yëngal. <laughs> kon donc ku ne ak li la yëngal. <laughs> waaw li la moo yëngal Tétis. pour pousser carrière am. Tétis toujours yaa ci benn label bu tudd Prince Art mën nañu xam sa intégration naka la demee foofu. waaw Youssou moo ma boole woon ak ñoom moom laa la wax ci début bi ak Kabou Gueye et tout bi ma ñëwee tamit ñu signé contrat depuis loolu ci laa fa nekk di liggéey ak ñoom est-ce que yaa ngi gis sa bopp ci biir label boobu am na ay avantages yoo xamante ni yaa ngi gis sa bopp bu baax waaw. waaw xam nga nag àdduna moom nit tout temps ci li nga nekk di yëngu dafa des mu nekk ci label wala du ci label liggéey liggéey la donc te je sais que ne je fais partie des artistes yi nga xam ne ñoom xam nañ sama valeur teg nañ ma sama place et aussi échange baa ngi fi ñi ngi may jàppale am nañu intérêt ci man ma dit ko noonu laa amee intérêt ci ñoom donc liggéey bi sotti seeg def si la vraiment je me sens à l'aise ci ñoom kon ñoo ko déggandoo elle se sent à l'aise avec euh, son label Prince donc liggéey bi sotti seeg def si la te ci gis nañ nga sànq ba léegi ci sa biir wax ne nga Youssou moo la découvrir dina indi la mm-hmm. bi ñu waxee léegi Prince Art ne nga Youssou ak Kabou Bey ñoom ñoo dox loolu ba nga dugg Prince Art tey mën nañ xam na mooy sa rapport ak Youssou bi waaw Youssou nag sama mag la sama kilifa la vraiment di nekk koo xam ne aussi jox na ma cër ci liggéey bi donc moom it dañ koy ñaanal yàlla parce que koo xam ne tamit teg na ma place mais maa ngi fàttaliku produit bi am na temps bi mu xaw a yéex woo na ma ma ñëw mu a ma yii xam naa la nag buñ la bàyyee rek da nekk ci sa ruq di tembala déedéet nag jógal léegi ñu eggale affaire yi vraiment mu nekk koo xam ne tamit mi ngi suivre liggéey bi te loolu am na solo. kon ñoo ko déggandoo mais Titi gis nañu récemment dafa am changement boo xamante ni indi nga ko ci sa maanaam ci sa wàllu port vestimentaire ci sa wàllu coiffure ba ci sa wàllu musique gis nañ la ngay génn ay blonde di génn ay orange di génn feneen tey mën nañ xam le pourquoi changement style Titi boobu ak changement musical <laughs> waaw changement musical moom waru bett kenn parce que ñëpp gisoon nañ ne musique musicaux aussi sonorité la boo xam ne biñ ko génnee am na ci ñoo xam ne da leen doon rappeler ay années 60 am ñoo xam ne nee da leen doon rappeler musique yu njëkk yi waa étoile doon def du dëgg am ñoo xam ne ñoom gis ne ci seen bopp que ne ah kii de war na mën a def dootu sonorité donc pour changement musical Titi moom comme li may wax rek bu mu bett kenn dëgg la nag mbalax lay def pure dure comme je toujours di mais nag am na sonorité yoo xam ne man Titi su fekkee gis naa ne mën naa ko santi ko sama voix dem ci avec dama koy def donc côté vestimentaire bi aussi comme ni ma ko waxee woon rek maa ngi gërëm ñëpp di santi ñëpp ak képp koo xam ne rek mos nga jàpp ci solal Titi wala poussé ci ci ci yenn tenue ah mais ak les 3 ans yi nii dama né rek maturité pourquoi pas duma jël euh, affaire nak sama loxo quand même suma gissé luma lu ma neex maam xaalis ma dem jënd sol ko ak ben staff bu ndaw bo xam mom la laa suma su sama idée ñoom it ñu valoriser ko parce que parfois aussi nit ki li ngay génne ci sa xol su amé ñaar ak ñett yu la ci doolé dafa neex ka tay nga ñëw génne won ben idée bo xam ci sa xel nit ki du ko gisee noonu donc de côté ma gis quand même ma façon bi solo parce que bi fi aussi je suis de nature couleur daf ma ma sol indi parce que mode de donc mais beaucoup de gens n'avaient pas compris au début mais je pense que les gens ont commencé comprendre identité de la euh, la vraiment fancy tamit bëgg ma c'est rek la vraiment ma jël daa samay mbir sama loxo. dégg naa ni ñu ne Titi bokk na ci artistes yoo xamante ni dañoo ñemee dépensé ci wàllu sol ci wàllu fashion ci wàllu mode maanaam da ngay jógee fii sax dem ba États-Unis uniquement jënd yére yoo xam da nga koy sol wala sa coiffure tout en sol récemment bi ñu dajeeg Adja Ambeniko seere na loolu nee na bokk na ci artistes yoo xamante ni li ngay dépensé ci wàllu sol dafa bëri tey est-ce que mën nga ñu expliquer loolu en plus artiste nga boo xamante ni aussi da ngay demander conseil ci ñu bëri. waaw loolu dëgg la loolu moom dëgg la vraiment Adja aussi ah, maa ngi koy nuyu lu bari parce que aussi elle fait partie ci ñi nga xam ne tey su soxla dara lo xamné mëna ma voyager mi ngi fi elle est là vraiment suma ko né Adja nangam la bëgg mëna ne ma ah, sama arrivage bu ñëw mujj bi de ñëw na vraiment fournel ma li nga xamné man tamit loolu la bëgg momit it ngi koy nuyu de passage di ko féliciter encore di ko encourager parce que momit jigen la di daan dooleem ci ruxam ba ñu ràññatle ko ci du dëgg te loolu it am na solo parfois aussi am na ay connexion yoo xam ne ñooñu samay xarit lañu génn wàll gi nekkuñu fi ñoom it ci site bi ñu nekkee léeg bu amee lu génn sax dañ may woo yee ndaama am na lu ñëw de wala ndaama ma ne yii acca yu ne ma GP wala yooyu xam nga wala DHL bi mu indil ma ci yooyu la daal ba nga xam ne ñoom aussi maa ngi leen nuyu de passage mu ñu nekk États-Unis ñu nekk Istanbul vraiment ak ñu nekk Paris ñoom ñëpp tamit lu ma ci soxla rek dañ ma ci fournir jox ma li nga xam ne moom laa ci bëgg ba man ma am temps mun a dem def shopping.